laa yaxilu daganul lil junubi koo xam ne sangu farata da ko war warul ca moom du xoolul masjidi muy dugg ci juma wala xiraatul qur'aani warul la jàng alqur'aan ilaa laayata ludul benn aaya wa naxwaha mbaa lu niroog benn aya muy saar wu lañ ko ca may mooy li taxawu si ngir mu musloo ko ca ayay musluwaay ya mbaa ca saari musluwaay ya lu mel ni falaxi ak nasi ak faatiha yooye rek lañ ko may moom mi janaba war te sangoogu ko wala ya joosu daganul liman ca jëmm ja nga xam ne laa yaqadiru attanul alal maa'il baaridi ci sango ndox mu sedd kooku daganul ca moom an yaatiya sawjatuhoo muy jariñoo soxnaam dañ ko koy tere atta yuxiida laalata ndare du waajal jumtuwaay boo xam ne mën na caa ame ndox mu tàng luy loolu bu dee mën naa def ànd bàyyi xal jiital xal ya teg ca doom ba teg ca lu mën a ndox saa ko soxlaa sangoo mu sangoo ko kooku sañ naa jariñoo soxnaam wala mu am ab gaas bopp bu sangu jotee mu tàngal ca gaas bam ndox sangu bu amut jumtuwaay yooyu nag dañ koy tere mu jegeñ soxna sa ilaa an yax talima lu dul di dafa gént su fekkente ne nag dafa gént di jaam yàlla ak soxna sa ba sangu farata war ko su boobaa nag fala say alayhi dara waru ko mën naa tiim julli te yéene waale ca cangaayal janaba nañu ko santaane fasloon lii ab dog la fi tayamumi ci tiim waya tayamamu may nañ mu tiim almusaafiru ka nekk cib tukki fii xayri masiyatin ci tukki boo xam ne du dox moy mooy yàlla wal mariidu aji tawet may nañ ko mu tiim li faridatin ngir julli farata aw naafilatin mbaa mu julli ca naafila wa yatayamamu alhaadiru saxiixu ki nga xam ne tukkiwul mi ngi cib dëkkam tey boroom ak wér-gi-yaram may nañ ko mu tiim lil faraidi ngir julli farata waaye nag la tax ñu may ko ko mooy isaa xaafa njeem ragaloon na xurooja waxti haa di génn waxtu wa diggante ba muy am ndox ba laab bay julli lu mu nekkoon ba loolu lépp dal ko mooy da doon sawe bakkan lu mel ni docteur bay opéré wala ña xam ne gis nañ loo xam ne buñ gaawut taqale loole ak bakkan ba loola faat bakkan ba kooka may nañ ko mu nekk ca loola nag ba loola pare bu fekkente ne sawe na bakkan ba ba noppi nag diggante ba muy wuti ndox fa muy jàppee fa muy jullee day tax waxtu wa wéy kooku wala ñooñu may nañ leen ñu tiim julli julleeg farata wala ya tayya mamu may ñu mu tiim alhaadiru ki nga xam ne nekkul cib tukki ma nga cab dëkkam saxiixu tey boroom ak wérgi yaram mayuñ ko mu tiim li naafila ci ngir julli naafila ndax julli naafila amul sàkkal waxtu kon diggante ba nga xam ne mën nga faa ndox julli naafila amut ab ab kon wutal ndox ba noppi jàpp dogu julli naafila loolu la diine maye ndax amul waxtu wuy wees ci julleeg naafila wala jumu hatin mayuñu ko mu tiim jullee julli jumaa su fekkente ne yenn feebar yeey tax ñu may ko tiim nekkul caw yaramam kon diggante jumaak morom ja daa sore semaine boobu war nga fee fàggu ndox ba waajal ko wala janaasatin mayuñu ko mu tiim jullee ab néew ndax fañ koy waajale ba ko denc wuti ndox xaj na fa ilaa isa taxayanat alayhi aljanasatu lu dul rekk moom am na ngantal jàpp te néew ba noon ne ne ma julee bu ma faatoo kooku nag su booba néew baa ko tànn kon may nañ ko mu tiim julee néew ba njeem dafa am ngantal ndox wa fara idu tayamumi farataay tiim niyatu yéene moo ca jiitu wa sahiidu taahiru ak pàkk-pàkk bu laab ca suuf sa dog caa teg yoxo ya wa masal waci ak masa xarkanam ba ndijoor ba dem tegu ca jéba ca wetak ndijoor nga xëcc mu wàcc romb bakkan bi wàcc ba ronu tuñ yi càmmoñ ba ñëw def noonu ca wetak càmmoñ moom loxob càmmoñ ndi joor ba ñëwaat jaar ca ga mu jaaran mu wet ak joor ga mu am ñetti masa ca xar kanam ba noona lañuy tiime boo tàmbalee tiim kon jàppal ne masa xar kanam ba foofa la yem wa masul yeday ni jàppal ne jëmmi masa ga ngay masa yoxoye ca tiim farata la ba nag day dem ilaal ko ay ni fa ngay takk sa montar cati ba fa ngay takk sa montar loola farata la ca tiim la nag jëm ba ca conce ya sunna la ca bu ñuy wax sunna yi dinañ la ko joxoñ wa darbatu lardi al ula jëkk teg ga ngay say yoxo ca suuf farata la wal fawru ak gaaw bañ doxale seneen soxla ca diggante ba boo xasee tàmbali tiim jëfe ko noonu farata la wa duxoolul waxti ak xaar ba waxtoo julli wa tab bi nga doog a tiim julli jëfe ko noonu farata la waa tisaaluhoo bi salaati ak jokkale tiim ak julli ga farata la jokkali tiim ak julli ga mooy boo tiimee ba noppi rek daldi liqaam tàbbi ca julli ga jëfe ko noonu farata la wasahiidu pàkk nag muy fa ngay teg say yoxo tiim jëmmi fa ngay teg say yoxo tiim huwa jooja turaabu mën naa doon suuf wa tóobu mën naa doon ban wal ajaru mën naa doon ay doj yu weex mbaa ñuul mbaa yu xonq wasal ju mën naa doon ab lay mbaa galaas wal xadd xaadu mën naa doon ndox muy daw dawaan di yëngutu wanaxwu salika ak lu nirook loolu wala ya joosu daganul es di tiim bil gis si ci lépp loo xam ne sima lañu ko defare almat booxi bay ba ñu togg mbaa ay karo sima bu ñu togg mbaa ay karo yooyu kenn du ca tiim wal asiiri basang kenn du ci tiim wal xasabi bant mbaa ay bant mbaa bant yu ñu gajj mu di ab gajj kenn du ca tiim wal asiisi ak boob muy ñax mu sax mbaa ay boob mbaab gi tax yooya kenn du ca tiim wa nax wihi mbaa yu niroog yooyu kenn du ca tiim waruxi sa yola malees na muy mayees na lil mariidi ci koo xam ne dafa tawat may nañ ko fii aaxitil ajari mu tiim ci lakkab doj nga luy lakkab doj mu ne mooy ab miir dañ ko entré hôpital wérgu yaram mayu ko muy déplacé di wuti li mu tiim te amut wér ak jàpp miir ba den ak moom mën na caaraay ay loxoom tiim ca nuñ ko mën miire nag baax na sunu borom dina ko jéggal la ca des watoo bi mbaa miira ban bu ko wër te ñu kook sima may nañ ko mu tiim ca in lam yajid ndax amul mba bu dee amul mu naawilan ko ko jottali aw xeer wu mu mën a tiime mba suuf su mu mën a tiime te tawat sa jàpp na ko ba mënuta jàpp ca ndox ma kooku jéggal nañ ko loolu ndax amut leneen xayruhoo lu dul loolee moo mën a egg ci ay yoxoom ba mën caa tiim kon nag may nañ ko mu tiim ca yooyee egg ci yoxoom ba mën caa tiim te ay yoxoom mën a egg ca yooye mën caa laal ba mën caa laal tiim ca wa sunnatuhoo ay sunnaam moom tiim dina ñu la ko jàngal ci nimero huit bii di ñëw yaa ngi jàng téere bu ñuy wooyee Laxdari yaa ngi ci page dix ci téere bi ma yor wasalaamu aleykum